waaw jërëjëf géeju ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, di nuyu population commune Thiénaba di ci jiital Baye Assane Seck xalifa général bi Thiénaba eh, kàddu yi moom defe naa dellusiwaat ci dina yomb parce que li ci ëppan solo lépp wax nañ ko li doon illay eh, daje bi tey moo doon taxawal commission yi parce que liggéey mënta am ndax dañuy wax ni néegu ñax boo ko xaddee ba tóoj ko bala nga ci amana samp blal force nga am ay jeen yu ko téye lan doon def tey askan wi leen waran def nan ko fal nanu maire fal nan bureau maire fal nan conseil municipal yi la dess nak ci ñun la mënu ñoo doxal sank samp ni commission yi ndax commission moy taw commune commission yi nak mom lañ doon samp tey e, yalla dogal na kenn ko ci nekk e, commission ban japp ni boko dina dox jox nan lako commission bi it bi ñuy bi ñu koy tànn jéemuñu koo tànn ay opposition ak parti pouvoir parce que amatul parce que bi ñu tolloo ci campagne kenn ku ne da ngaa soloon sa mbubbum politique yàlla dogal na jeex na tey ñu sumbiwaat mbubb yi wékk kon li jaadu rek mooy ñu ànd liggéey liggéeyal population commune Thiénaba liggéeyal askan wi. commission yi ni ko tànnee mooy conseil yëpp dafa dafa teew. commission yi maa koy joxe ma proposé bi may proposé tànnuma ni kii sama conseil la wala conseil feneen la parce que awma conseil conseil yëpp samay conseil lanu ginnaaw nag maa am droit dénkaane képp ku ma yaakaar ne lii rek man nga ko dénk naa la commission wutaat ñoo ca àndal pour jàppale loola dox moo tax conseil yi eh, ñoo toog ma proposé commission yi conseil yi nangu ko dogal ko kon ñëpp ci bokk yam Euh, waaw situation étudiant yi euh, àggagun ci dafa fekk nag euh, léeg-léeg comme xam sama jikko xam ni am na foo xam ba ma toll une ma cabaxal. cabaxal nag du xaw ma nu koy waxee du do du caagi nag da wëlbatiku rek ba mu daano mais nag am na foo xam boo fa yàgg boo fa bëggee mu dox il nga cabaxal téye ko galgal bi bu dëgër ba nga xam ne dina xam ne galgal nga ko pour bu ëllëgee mu xam ne nuy roofe ab galgal loolu mooy tax problème étudiants yi étudiants yi moom li ma ci wax defal naa leen ko loon kenn mës sa defal parce que bi may ñëw 2014 fekkuma ñu am cent mille francs subvention maa jëkk a yëkkati mille francs jox leen avant ñuy dem élection bi ma yàlla dogalee ma toog maa leen jëkk a jox cent 500000 ca déwén sa ma yokk ko def ko 1 million. ca déwén sama yokk ko def ko cinq cent mille ca sama yokk def ko deux millions ren ma def ko trois millions loolu maa ko defal étudiants yi waaye nag bëgg naa it ñoom itam ñu xam ne loolu ma leen di jox alale askan wi la parce que commune bi ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nag da ngay xam noo cay demee su ko defee bëgg naa ñu taxaw seetlu xam seen commune lan lan leen di andil ak ban taxawaay lañ ci am loolu daal soxla soxla woon naa ko sama wet ñu jéem a jàppale commune bi parce que jàppale wuñ ma commune bi la ñuy jàppale parce que li ma leen di jox askan wi ñoo ko moom kon jaadu na ñun ñëpp ñu ànd bokk liggéey commune du Thiénaba citoyen képp ku nekk commune yu Thiénaba li jaadu mooy ni Sénégal bindoo président nekk benn di président Macky Sall képp kuy citoyen tant que jeexul da nga cee war a jàpp ba mu réussir parce que ëllëg ëllëgi sunu borom la commune bi it noonu la demee tey yàlla dogal na man la ëllëg kan la xamuñu ko kon da ngaa ñaan yàlla parce que dañoo wax ni soo amee sa kilifa mu toog cib jal te nga bëgg a toog ca jal ba doo wànq jal ba parce que boo wànqee jal ba moom toog ci yow boo dikkee fooy toog da ngaa war a jal jal ba mu jóg ba bu ëllëgee yow boo dikkee ñëpp seen la ci kaw moo tax li war population bi moo war étudiants yi moo war ñëpp. kàddu yi mujj xanaa di leen sant bu baax di leen gërëm kooku def naa ko bii passé bii passé def naa ko presse local bi def naa subvention bi def naa ko xanaa yokk kay la ñuy wax waaye dama ne ñaan naa yàlla li ma leen jox ren bu dewee bu déwénee ma yokk ba ñëpp xaj ci parce que mën naa am ñëpp amu ci wala lanu am jëri jëri euh, nam war a mel melu ni mais dañuy ñaan yàlla nag euh, commune bi am doole subvention Euh, boo xam ni bu nu ko tegee presse local bi dina ci gën a gis seen bopp waaye néew na commune yooyu dem eh, presse local ba fa nekk day am ay subvention la nag man maa ko xalaat te def naa ko damay ñaan yàlla rek yokk ko kon maa ngi sant ñëpp aussi di gërëm ñëpp di delluwaat di santaat su préfet bu baax eh, ci toogaay bi parce que tey eh, yàlla dogal na fi nu commencé ba fi nu tëjee bougéwul te fépp foo xam ni àgg nañ fa Euh, bu même bu nu na euh, def dëng-dëngal sax moom moo nuy jubbanti ba teg ko ci parce que xam lépp yombul doomu aadama day xam ni doomu aadama la doomu aadama nag boo xam ne jàpp nga ni lépp xam nga ko booba xamoo dara doomu aadama day nu xam li mu xam la mu xamul mu nungu moroom ma dend ak moom xamal ko ko parce que nag xel mu rafet xel yu rafet da koo gën sa xel mën naa rafet mais nga nekk ci équipe équipe ba ñëpp seeni xel rafet kon ñoo lay ñoo lay ëpp doole kon lool toogaay boobu mooy sunu toogaay tey kon ñu ngi koy sant bu baax vraiment di ko gërëm di sant euh, presse bi di sant population bi di sant conseil municipal bi di sant équipe bi nga xam ne ñu nekk ci maire bi di sant nag population commune Thiénaba bu baax ci lii nga xam ni waxan naa ko dinaa ko waxaat ci moom la ñu passé muy élection yoo xam ni commune Thiénaba gàcca ngaalaama parce que commencé woon ci bisimilahi rahmaani rahim jël ko ci alhamdulilahi rabbil alamin amul sunu benn kilifa boo xam sonal nan la parce que am na nu muy demee noo xam su préfet mii tey dina sonn ñett ñu sonn waaye loolu amul def nan ko ci jàmm def ko ci salaam bi yàlla dogalee ma gañe ñi ci ëpp ñëpp jël leen seen téléphone félicité ma loolu it maa ngi leen ciy sant ma dellu di leen woowaat ñoom ñëpp nag parce que kenn ku ne da ngaa xalaat moo tax nga nekk candidat xalaat boobu nga aman pour nekk candidat nag xalaat boobu mi ngi fi mais la nga yéene woon tey ni mar naa koo mën a def du caaginu nit balaa jariñ population daa nekk maire man ku ma xam-xam ni population bi ma leen di jariñ booba nekkuma maire loolu nag lama yàlla fayee ba lii ñëw ci ndigalul euh, population bi ak ci seen yéene kon ma bëgg ñu candidat yooyu nga xam doon doon noonu wut te yàlla dogal amuñu waaye seen xalaat boobu commune bi da koo bëgg jariñoo mooy tax bu ëllëgee bu ñu delluwaatee ci askan wi parce que delluwaat ci askan wi ñu leen kat wutal waaye yàlla joxuma ko waaye lay seen doole def ngeen ko kon maa leen andi lii jàppalee ko mairie bi yaakaar naa ni baax na maa ngi nettali rek ni eh, benn candidat bu aman Tiwaawoon eh, doon xëccoo ak ka fa nekk Diop si aman xalaat andi ay ambulance andi ay corbillard mais yàlla dogal gañewul loolu lépp la fab yóbbu maire ba ni ko lii maa ko xalaata nan ànd liggéey loolu day waral bu ëllëgee bu yàlla andiwaatee ab dogal te mu agsi ci yow yow sax nekkin day neex kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw jërëjëf Ismaïla ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment ci seen teewaay di leen gërëm surtout aussi ci collaboration bi nga xamante ni moo am entre euh, la collectivité locale ak presse locale bi nga xamante ni moo nekk ci gox bi tey nag yàlla dimbali nañu bi ñu ñëwee vraiment ñu samp commission yi nga xamante ni ñoo war a dimbali eh, équipe municipale bi ci liggéey bi nga xamante ni moo leen xaar eh, dimbali le maire ci liggéey bi nga xamante ni eh, moo koy xaar mu doon liggéey boo xamante ni bu bu bu am solo la. parce que nag comme ni ñu waxtaanee ak maire moom aussi dafa bëgg liggéey loo xamante ni ci mandat bi macha allah ànd ko ak conseil yi loo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp. dinañu gis euh, euh, liggéey boobu ba tax na ñu samp commission yi tey am commission yoo xamante ni taxawal nañ ko lu jëm ci commission santé ñu joxoon ko ki ñuy wax Pape Malick Dieye nga xamante ni moom day yëngu ci santé te boobu ba léegi ci lay def biologiste la di ci def ay formation ak yu demee noonu moom lañ jiital ci commission boobu toftal ko Saagay Diop mu doon rapporteur ba ak Safiatou Kane mi nga xamante ni relais la nekk ci wàllu santé Khady Gueye aussi relais la nekk ci wàllu santé mais Roqee kànj mi nga xamante ni aussi xam nañ ko ci santé lu yàgg mu nekk ci moom tamit di ko jàppale ci commission boobu mu doon commission boo xamante ni bu am solo la waaye bu ñu ñëwee aussi samp nañu commission éducation éducation aussi ñu jox ko Modou Mboub moom tamit vraiment doon enseignant euh, Modou Mboub euh, ñu jox ko éducation mais toftal ci moom ab Ablaye jaw euh, mu doon rapport moom Ablaye Diaw ak Mamadou Seydou Diop ak Fatou Mataba ak. Euh, Pape Maudo Djei, notre rapporteur. Mais commission partenariat, relations extérieures ak coopération Bob aussi mu une commission bu am mais nga maintenir peut-être partenariat, yeeg yu non, une relation extérieure moo ko yore kooku ñu dénk le professeur Daouda Diop. professeur Daouda Diop ku ne xam vraiment machallah, qui ci engagement am ci aussi euh, Moi, tamit ñu dénk commission mais toftal ci monde, Cheikh Samb Cheikh Samb ak Dan Bousso. ak mun a Mbaye ak Pape Madiabel Wade alors là Cheikh Samb doon euh, rapporteur bi mais lu jëm ci wàll hydraulique aussi ñi ngi ko dénkoon ki ñuy wax Mor Mbeng Mor Mbeng moom lañ dénk hydraulique parce que hydraulique dañ ko joxoon euh, Ndiaga Dieng wax dëgg yàlla moom lañ ko proposé woon mais moom aussi ci biir proposition moom mu ne bu sañoon da ci nekk membre di jàppale ñi nga xamante ni ñoo ci nekk ci loolu lañ ko joxee moor Mbeng mu diriger hydraulique mais Maguette Diouf mi ngi ci commission boobu ak Ndebansung ak Ndiaga Dieng ak Mame Damier Niang euh, aussi am na beneen commission commission affaire religieuse ak action sociale kooku aussi ñu dénk ko sëñ Mame Mor Seck waaye it toftal ci moom Serigne à Seck waaye moo Gueye aussi mi ngi ci biir mooy rapporteur bi ak Dan Bousso ak euh, Ndumbe Mbeng waaye commission planification aussi mu donne commission bu am solo bo xamanteni mom mairie communautaire, collectivité locale lepp loy def bala ko def il faut nga planifier ba paré. commission bobu ñing ko denk ñi wax Mamour Gueye Mamour Gueye ku ne xam juriste de formation te vraiment euh, ko engagé wu la ko xereñ la mom aussi euh, Adama Diop mi ngi ci bir commission bobu Modou Mbuub mi ngi ci bir commission bi Sassoum Sey mi ngi ci bir ak Mbaye euh, ak Mboy Guèye moom tamit mi ngi ci biir commission énergie ku ne xam ne énergie que ni vraiment Gora Diagne moom moo ci nekkoon ànd ak vraiment équipe yi di ci def liggéey bu mucc ay ayib bi mu ñëwee aussi moom lañ dénkaat commission boobu commission énergie moom Gora Diagne euh, Ablaye Diaw mi ngi ci biir commission bi Mbaykan mi ngi ci biir Ibou Khoule mi ngi ci biir Njaatu Cibbu mi ngi ci biir commission boobu euh, commission hygiène assainissement là ñu dénk ko Adama Diop man mii lañ ko dénk Fat Congaan mi ngi ci di ma jàppale taala Gueye mi ngi ci biir Nogoy Ndaw mi ngi ci biir Fama Diop mi ngi ci moom mooy rapporteur transport ak infrastructure ñu dénk ko Birane Gueye Birane Gueye ku ne xam na ko wax dëgg yàlla euh, mu doon notable ci zone nord doon koo xamante ni wax dëgg yàlla ku engagé wu la moom tamit kuy dimbali askan wi la Birane Gueye moom lañ ko jox mu ànd ci ak Mamour sàll wax dëgg yàlla di sama xarit moom tamit di ko baax euh, Maguette Diouf Malick Ba ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di ay nit yu engagé ak Ndebane Sung euh, ñu jëmee ci agriculture ak élevage ku ne xam na ni zone bi zone agriculture la zone élevage la alors euh, loolu aussi mu doon commission boo xamante ni bu am solo la ñu dénk ko sëñ Dan Bousso moom moo ko yore woon moom aussi lañ ko dénkaat mu ànd ci ak Malick Ba amin ànd ci ak lamintine Tine ci ak Aram Diop ak Siré Ba

nga xamanteni moy, jëm ci walu jigen ni seni formation seni euh, euh comment dirais financement ak loolu ak lolu koku soxna Roqee kanji lañ ko denk Roqee aussi mi ngi ko ci jappalé ndey Fat Samb euh, mi ngi ko ci jappalé aussi Rama Kéré Sofietu Kan Fatou Thiongaan ñom ñep ñu ngi koy jappalé ci biir commission boobu mais jeunesse sport loisir ak culture là aussi donne commission bu am solo ñu dénk ko sëñ Diop papa Sagay Diop moom lañ ko dénk di ko ci jàppale papa Madiabel Wade papa Malick Dieye Ndeye Fatou Samb ak Ndebane Sow mais euh, commission domaniale aussi la commission domaniale ñu ngi ko dénk sëriñ moo Gueye Mori Gueye moom lañ ko dénk mooy président ba Gora Diagne mu ngi ci biir Ibou Khoule mu ngi ci biir Adama Diop comme rapporteur mi ngi ci biir mais màgget Diouf aussi mi ngi ci biir commission la ci gàttal daal Ismaïla commission yi noonu la tëddee yooyu lañu formé mu doon commission yoo xamante ni ñooy bras technique gu maire bi pour jàppale ko mu mën a liggéey liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la euh, moo taxoon ñu tànn ñu jox leen mu doon ñu engagé pour ñu jàppale ko ci liggéey bi. ñoo nekk ci commission bi waaye a été démocratique. parce que boo seetloo. Euh, am na ci commission yoo xamante ni sax dañ ko proposé woon ñenn ñi ñu nekk ci opposition ñu décliner euh, seen offre boobu euh, ku ci mel ni Mamour Sène am proposition buñ ko defoon mais bi ko Ablaye Diaw wooyee donte ni ñëwul moom dafa ni daal vraiment na nekk membre rek ci kii yi ku ci mel ni Ndiaga Dieng moom tamit am na commission boo xamante ni moom lañ ko joxoon moom it nee commission bi daal day préféré pour nekk ci membre rek mais bon c'était Mor Mbeng wax peut-être de euh, euh, ci sunu coalition euh, mais Mohamed, dès que nous ko commission te moom vraiment pour mon ko doxal ku mel ni mbaykan moom tamit macha ku mel Abi Ndiaye tout ça ñoo ñëpp bokkuñu kii mais aujourd'hui kenn waxatul wàllu coalition li ñu wax mooy Thiénaba Thiénaba moo ñu ñor ce canaba mooy li nga xamante ni ñun ñëpp war nañ cee taxaw lu ñu gis loo xamante ni mën na koo doxal ku ci nekk def ci bay si sawar ba loolu mën a dox jërëjëf Ismaïla